asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxemes ñaar fukki fan ak ñett ci Saabaan muy weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent ak ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan juróom-benn ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan ñett bokkul ci lim yi fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci alxemes ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo alxemes ju nekk sunna la ci ku ko man mu wóor ko ñaanu bis bi yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci. malay lay ñaan loo xam ne amuma ci xam-xam boo ma te yërëm ma dinaa bokk ci way perte ñi rabbi inni audu bika an asalaka maa laysa lii bi ilmun wa illaa taxfir lii wa tarxamni akun min alxaasirin rabbi inni audu bika an asalaka maa laysa lii bihi ilmu wa illaa taxfir lii wa tarxamni akun min alxaasirin xaddisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yi ñooy gën a gudd ay doq ci nit ñi ëllëg yowmal qiyaam xaddis bi muslim ñettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almuazzinuuna atwalu nnaasi anaaqa yowmal qiyaama rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi cinq heures cinquante neuf juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñeent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 téeméeri kilomètres na yokkal benn simili jant bi dana fenk sept heures quatorze juróom-ñaari waxtu yu tegal fukk simili ak ñeent di so dix-neuf heures quinze juróom-ñaari waxtu yu tegal fukk simili ak juróom yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin